ma marsiyaati say xanaa ma samba tabba fi daa roy lu say xi bamba masin joona suubu leen dem gaar leen taxaw jër leen saako nuy sant sayxi Falliloo mbokki Sénégal njàqare jeex na bis ni tey ndaxte lu ngeen doon jéggaani faneen ñëw fekk si leen fii ah dama ni mbokk yi su ngeen bëgg a tey lu sell lu neex baax seen wér-gu-yaram bu ngeen doon wër café bis ni tey mbokk yi gis ngeen ndax nag café Serigne Fallou Mbacké di produit bu bees tàq ñëw si marché bi waaye nag wuyu boroomam café Serigne Fallou Mbacké 100 pour cent hygiène 100 pour pour cent naturel Fall bii nag mooy marque bu njëkk si café ñu duppee ko Serigne Fallou moo waral bu ngeen bëggee am si ay stock def seen réservation mën ngeen woote bu dee Touba la si 77 636 38 03 bu dee Dakar Ouest Foire lay doon 77 521 39 ngeen woote si 77 027 43 76 wala sax ngeen woote si 77 521 39 14 café Serigne Fallou 100 pour cent café produit bu mucc ayib moo leen di gunge saa su nekk الرحمن الرحيم إن الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخ القديم رضي الله عنه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokki mi ngi dellusiwaat tey am mbégte bu baax àndaat ak yéen ci site bi ñuy tuddee ndindi point actu ci fàttalikuwaat jàmbaar joo xam ne kenn la ci ñu nga xamante ne ñoo nekkoon ak Cheikh Ahmadul Khadim euh, ñu ànd koog fondation bi nga xam ne moo boot commission culturelle bi nga xam ne Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko jiite ak suñu Cheikh Abdou Baaxe ak ñi gannaaw ñëpp tey nag ñu ànd ak Cheikh Bachir moom seex Mamadou Moustapha ngir ñu fàttaliku maamam juju nga xamante ne. moo ñu indil loo xam ne bu ñu ko amutoon dañ ko wuti te mënuñ koo ñàkk muy ma sàmba di ñaan ki nga xam ne moo toogee ab jataayam di Cheikh Mamadou ma sàmba yàlla wéral ko guddal aw fanam bu baax a baax ba li mu naanal ci toolu maamam bi mu def ci lu kawe njortam te ànd kook ay rakam yépp ak i taalibeem euh, ni ko maam Serigne Dia waxee sànq ci jaar-jaar yi nga xam ne moom la ñu waajale waajalee Cheikh Massamba suñu ko dégloo bu baax kon dangay ngay déggee ne kon ma sàmba am na luñ koy waajal di ko ci xaar ci moom mu war koo taxawee ak jamono ndax yàlla bu nammee mbir dalay wutal ay waajtaay waajtaay yooyu nag bokk na ca e, jaarwaay yi nga xamante ne maam Serigne wax na ko sànq ci bokk goo xam ne bokk na ko Serigne Touba ci bokk goo xam ne bokk na ko képp koo xam ne Euh, nee nañ am na càllale gu baax ba ca maam loolu day tekki nekkoon kon Cheikh Massamba cëru na ci cër yëpp waaye it euh, yàlla defalaat ko tawfiix mooy mujj ñëw gu mu mujj ñëw euh, muy loo xam ne buñ ko jàngatee dañuy gis ne kon bu njëkkoon a ñëw dana am lu bari loo xam ne dana ko soxla te dana ko manqué waaye nag waajal buñ ko waajal moo tax mu mujj ñëw niki ni ñu waajalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mboolem yonent yëpp noonu la ñu waajalee ma Massamba ci mboolem xutba yëpp xutbu yëpp loolu moom la Serigne Touba di wax naan laa tuxassis fadla rabbin qad ala bi si taqaddumin faqat fatajala kon Cheikh Massamba mujj gi mujj ñëw Serigne Touba njëkk ko jamono taw fii tawfiixam la ndaxte moom rek moo mën a wax ne comme ni ko maam Serigne waxe sànq euh, Cheikhul Khadim mooy sama waajur Cheikhul Khadim mooy sama mag. seexul xadim mooy sama sëriñ ñetti wàccuwaay yooyu nag seex samba wéet ci lool te kenn fekku ko ci te bu fekkoon moo jiitu seexul xadim wàccuwaay yooyu kon du ko mën a am kon bokk na ci waajtaay wi ñu koy waajal mooy loolu ci la bokk sëñ Tuubaa defal ko lépp ndax dafa am loo xam ne da ko soxla ci moom ndax euh, boo gisee sëriñ Tuubaa taxawee ko noonu mooy dafa doon waajuram ci wuutu waajuram ba nga xam ne moo ko waroon taxawu ndax xam ngeen ne waajur moo war a jàngal doom moo ko war a yar euh, xam ngeen ne euh, waajur moo war a toppatoo doomam ci lépp loo xam ne dana ko soxla moo tax Serigne Touba taxawee taxawu taxawaayu Luqmaan na mu taxawee ci doomam ne la Serigne Touba woon ci Luqmaan ci wuutu ci waajuram wu tedd woowa nda xam ngeen Luqmaan waxoon na yàbb na ya aqimi salaat ak ya ci aju lépp niki noonu it euh, taxawaayu mag. yoo xamante ne dana dana dana wuutu waajuram ndax dañuy wax ne su ma su ma fekke woon sama waajur danaa ko defal lu ma lu ma ko war a defal soo fekkee sa mag te defaloo kooku dañuy wax ne wax joojo kon euh, xel du ko nangu moo tax euh, bi mu ganee jamono fekk fi magam ju baax jooju mu jàppe ko waajur moo taxit magam ju baax jooju euh, la nga xamante ne ni la Binyamin joxoon cër Yuusufa alayhi salaatu wasalaam ba wax ne wa haza aqi qad manna allahu alayna Cheikh Massamba mën na ko wax Serigne Touba mën na ko wax ne ko ah maag Serigne Touba daal Serigne Touba yàlla moo ñu baaxee moo ñu defal xéewal gi nga xam ne moom la ñu xéewalee niki noonu it Cheikh Massamba ni xudar toppe woon yonte wala ni Moussa toppe woon yonte yonte yàlla xudar wala nitu yàlla bu ñuy tuddee xudar borom xam-xam yi wuute nañ ci eh, noonu la Cheikh Massamba toppe woon Serigne Touba te ñu wuute ak mujj ndax xudar dafa dem ba ci ba ca ga mu ne ko fii la ñuy yem ak yow xasa firaaku bay nii wa bay nag waaye sëriñ Tuubaa Seex Masamba moom mucc na ci loolu dafa ànd ak sëriñ Tuubaa ba jeex ca tàkk loolu kon tawféex la joo xamante ne Seex Masamba boole na ko ci li nga xamante ne moom la doon nekk ci roon ki nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa loolu euh, waral loolu nag mooy dafa am liggéey bu koy xaar moo tax sëriñ Tuubaa jaarale ko ci université bu ñu yaakaar ne euh, nitu yàlla war na caa jaar rek sëriñ Tuubaa dugal tàbbal na ko ci biir université booba bokk na ca ni ko maam Cheikh euh, Dia waxee sànq maam Serigne mooy jaar na ci université sëñ Mbacke Abdourahmane jaar na ci université sëñ bu Bousso jaar na ci euh, université maam Ibra Fati niki noonu ba demee gànnaar université bu mu jàpp ne bu ca bu ca jaaree dana ca dollee ko loo xam nitu yàlla dana ko soxla jaar na ci université yëpp gannaaw ba sëñ Touba ci moom loolu nag kon day wane ne kon dañ koy waajal. ndax loo xamante ne dana tege ci loxoom ëllëg jamono soxla ko te moom jàpp nañ ne moom rek moo ko war a saytu euh, niki noonu moo tax euh, bi Sëriñ Tuubaa pare ci moom bayit yi nga xamante ne moom la euh, Ibrahima Diop almasari doon seere ci moom mu am ay jikko ak ay ay melokaan yoo xamante ne tabbi ni ci kawam jikko yi mu ko a tagee boo a xool munul ñàkk ci koo xamante ne dañ koy waajal Cheikh Ibrahima Diop ne ko fatan fatinun labibun xaasiqun yaqisun nadbun karimun ala taati wal xidami boo dee xool juróomi njëkk yi kuy jàng ku ne war naa nekk ci yow war nga yeewu war nga nekk cam su sawar war ngaa nekk ku am xel war ngaa nekk ku ñaw war ngaa nekk ku xam jamono moo tax bis sëñ Tuubaa pare ci Seex Masamba yëpp dafa daje ci moom waaye mu jële ci qualité yi ñu taggee nit mooy nadbun karimun ala taati wal xidami ba mu jógee ci sëriñ bi ab tab la doon ba mu jógee ci sëriñ bi ab ku tedd la doon koo xamante ne lu mu wax lu ne aw yiw la niki noonu it mandarga mi ñu ko xamee mooy jaamu yàlla topp ki nga xamante ne mooy magam ju baax jooju euh, moom euh, sëriñ Touba bi mu paree ci maam ma Massamba nga xamante ne moo ko jàngal te sëriñ Touba ki ko jàngal mooy boromam ndax moo waxal boppam ne allamani laawul alim mimma yasaaw min ulum kooku nag bu jàngalee Cheikh Massamba kon Cheikh Massamba war naa dun kàggu goo xamante ne kàggu gu fees dell la Euh, maam ma Massamba moomu géeju ci mbooram xam-xam yépp euh, ndax mënut a ñàkk doon géej ndax géej yooyu muy géeju ëllëg day layal jamono te jamono da koy soxla te moo war a tontul Serigne Touba question yi nga xam ne war naa mën a ñëw jamono ndax Serigne Touba nekkutoon koo xam ne amoon na genn jot gi ba mën a wax ak yi wala mu mën a wax ak waa jamono ndax digganteem ak boromam ak digganteem ak Serigne yonent bi alayhi salaatu wasalaam doy nu ko sëkk. moo tax bokk na ci kéemaan Serigne Touba mooy waajal goo xamante ne waajal na ak njabootam ba nga xamante ne moom danañ ko mën a jàllale mission bi nga xam ne moom la soxla woon Cheikh Massamba nag bokk ci ñi nga xamante ne war nañoo jàllale mission Serigne Touba ci li nga xamante ne moom la liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax damay wax ne bu tubaab bi xarala woon dëgg-dëgg bi muy yóbbu Serigne Touba ci géej gi njaboot yëpp lay yóbbu waaye avant muy dem ci géej gi fekk na Serigne Touba pare na ci njabootam moo tax bi ñu yóbboo Serigne Touba yàqu dara ci liggéey bi dafa gën a baax ndax ba mu demee ci géej gi mam la doon jaamu di taggu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mission bi mu soxaloon ci kaw suuf ak njabootam ñu ngi ko doon taxawee gën kaa rafeti taxawin te kooka kenn la ca Cheikh Massamba mi nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey Cheikh euh, boo xamante ne bi Serigne Touba paree ci moom rek euh, da cee da cee da cee da cee jëlee da cee jëlee set goo xamante ne set na ci wecc ndax xam te tasawuf bi nekkoon Serigne tubaa kum ko sottil soo paree da ngay seet ndab loo xamee ndab lu seet wecc ngay doon ndab loo xam ne lu ñu ca def rek loola dees da ko mën a xemmem dees da ko mën a taamu moo tax euh, moom Cheikh Massamba fa saara safiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al anwaari daa mujj fees dell ak leer fees dell ak xam-xamu ikam ndax moom lañ dott ci moom euh, koo xamee da ngaa war a liggéeyal nag da nga ko war a doon moo tax sëriñ Cheikh Massamba maam Cheikh Massamba li mu gënoon itteewoo mooy doon sëriñ Touba ndax bu ko doonut li mu ko bëgg a taxawee day du du mën a sotti moo tax bëri lu ko Sëñ Tuubaa laaj ne ko ma Masamba loo bëgg mu ne ko ah, mel ni yow mel ni yow rek laa bëgg ay yoonu yoon ba mu jàgg ku baax ki ne ko mel ni man de faat na waaye defal nañ la fu ma nekkul nga nekk fa kon fu Sëñ Tuubaa nekkul rek boo fa xoolee Seex Masamba Sëñ Tuubaa ngay gis loolu nag tawféex la joo xam ne dana ko yombalal liggéey bi nga xam ne moo koy xaar moo tax benn naar Mauritanie di ko wax ne di ko seede wax ne xaaloo Masamba a awil qadimi ata huna falaqad nara fihi jamia sifatihi daa mel ni ki kii ñu jàkkaarloog Serigne Touba la moo ne daa mel ni ma Massamba la waaye jikko juñ daan gis ci Serigne Touba ma nga ca moom melokaan buñ daan gis Serigne tubaa ma nga ca moom ndax loolu lañ ko rafaatale woon moo tax ma Massamba ba jaayante jote la jóg jaayante ñu njëkk a ci yoon wi maam Cheikh Massamba ci la bokk ba Serigne tubaa wooyee Serigne Fall ak Cheikh Mouhamadul Moustapha woo euh, euh, sëñ Mbàkke Buso woo Seex samba mu xamal leen ne li nekk ci man jaayante moo moo mooy tax nga ñu mën cee jot sëñ Masamba la mu njëkk a wax mooy ndokk ba ba ñu waxee nañuy def ba am kon dana am man moo tax Seex Masamba tàmbalee eh, ñu njëkk a jaayante ci kanam Serigne Touba Seex Masamba mu ci la bokk ndax xam ngeen ne jaayante dafa nekk loo xam ne moom islam ñu ànd yonent bi alayhi salaatu wasalaam sahaaba yi dañoo jaayante noo ak ñoom moo tax Serigne Touba bi mu ñëwee dafa jaayante ki nga xam ne mooy yonente bi alayhi salaatu salaam wax na ko ay yoonu yoon ba mu demee ci géej ga feet leen wax ne baayaatuhu fil bahri fil bahri taxta sajara wal bahru musbidun wa awlil fajara ba mu demee gànnaar mu ne baayaatuhu fil barri taxta sajara wal barru tayyibun wa awlil barara kon loolu da wane ne kon yoon wi yoonu jaayante la Cheikh Massamba nag ca saasa la jaayante moom futteeku xam ne kat li nga xam ne mooy moo nekk ci Serigne Touba bokk moom du ko maye mu jur la du ko maye nga jarbaatu du ko maye waaye ndeke li koy maye mooy liggéeyal ko moo tax Cheikh Massamba daal di summeeku nag takk ndigam fas yéene liggéeyal Serigne Touba xoolatul lu mu bokk ak moom xoolatul lu ko boole moom waaye li mu xool mooy fas yéene jariñ ji moom maam ma sàmba bi mu jaayanteeg moom ba noppi jaayante buubu nga xam ne moom la def ak moom ci ñaar la moom mooy jaayante nag moom ci liggéeyal ko jaayante nag moom ci diglu ko te ñaar yii rek la ñu nit liggéeyal ko ba pare di ko diglu moo tax euh, benn waykat mi ngi seere lu wax ne xadamta sayxaka fi sirrin wa fi alanin wa usta min dawihi maa doonahu nooru yow daal Seex Masamba yaa liggéeyal sab sëriñ ci lu nëbb ak ci feeñ waaye ba nga ca paree làqe nga ca lépp loo xam ne ay leer la lépp loo xam ne ay ngëneel la euh, bi mu amee jaayante boobu nga xam ne liggéeyal ko ak ak euh, diglu ko benn ittee la am Serigne Touba mooy ittee joo xamante ne kenn mënu ko natt moo tax Serigne Touba danaa wax naan Cheikh Massamba daal bëgg naa ngeen ngeen ngeen bàyyi ma ci xel ngeen dégg ma ci bu baax ndax bu ngeen ma ci déggut Euh, dana doy waar lool ndax li ko waral mooy Cheikh samba dafa am benn itte bu dul sama ite Sëriñ Tuubaa moo waxal boppam ne fa kullu ma nasara nii fii Cheikh fii fii Massamba fa saw fa bu nii sama ma xaal laa li Massamba imbatun sima siwaa imati ma samba daal amul benn itte bu dul sama itte gannaaw ba amul benn sama sama benn itte bu dul sama itte nag moo tax ma féete ko fu ma féetewul kenn moom Sëriñ Tuubaa bi mu demee ba xam ne war naa liggéeyloo Cheikh Massamba dafa listixaarloo boromam ne ko man kat liggéey bi ma doo liggéey sotti na liggéey bi ma doon liggéey yonent bi sotti na ya ci yan loxo laa ko war a teg def listixaar listixaar ga joxoñ ko Seex Masamba moo tax mu ne damaa listixaarloo sama borom ci kan moo may féete ci sama borom joxoñ ma Seex Masamba moom Serigne Touba moo wax ne euh, inna seexal xadim istiasana min rabbihi fi istiktaabi Seex Masamba faata ilhama bi tanfisi zalik ba tey Serigne Touba wax ne sama xasaayid yi ñoom ñoo jógal seen bopp taamu Seex Masamba saytu leen moom Serigne Touba wax ne inna xasaid yi tasku allah yaqutuha xayra Masamba loolu nag li muy tekki mooy bi sëriñ bi defee li mu def lépp ciy karaama ciy mojisa ciy effort li mu gën a naw ci li mu doon liggéeyal Serigne Touba yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy xasaayid yi waxut ne julli géej gi mooy samay karaama waxut ne mbooloo mi ma topp mooy samay karaama waxut ne duma gi ma duma tubaab mooy sama karaama waaye ba muy wax dem ne karaama yi xattu yet sama karaama yooyu nag Seex ma rek rekk ma ci doy moo tax benn waykat di wax ne matnul xasaa'idi min yaddil karimi ila ladayka wal baadu mansurun wa mansurun a ah, bu xasiida masaan pare ci ku baax ki maam maam Seex Masamba xam gum ko xam ak dégg gum ko dégg dana waaj waaj wa ca war jël kayit woowa sotti ko bu paree delluwaat ku baax ki xasida ga yoraat ko ci boppam kon xasida buñ mën a yor ci kaw suuf tey ci loxol maam Cheikh Massamba li ci ëpp ci moom la jaar la ca des nag mu saytul ko ba nga xamante ne eh, dana dana dana la ca war dana ca am moo tax eh, loolu nga xamante ne moom la maam Cheikh Massamba taxaw woon ci xasida yi eh, nga xamante ne léeg-léeg sax ku baax ki dana xaalu ba def xasida goo xam ne bu paree day laaj ne wax ji ku ko wax loolu tax dégg goo xam ne maam Cheikh samba déggoon na ko mu ne ko maa lay jox ndigal ci xasida yi lu ci war a génne na ko génne lu ci war a génne bul ko génne sëñ sax ma samba génn ci xasida yu bëree bëri ci jamono yooyu mën nañ laa mën nañ caa tudd lu tooy mel ni wasilituru bom am na ci xasida yoo xam ne sax day ñaan ku baax ki ne ko may ñu ko ñu sasoo ko su baax ki jox leen ab dik ne leen bu bu heure sangam jotee da soxlawaat naa ko balaa heure heure baa jot ñu mokkal xasida gi séddoo ko mën nañ caa lu mel ni ki euh, xasida gi mooy muqaddimaat nga xamante ca saasa lañ ko njanja mokkal ko benn yoon ngir rek fare yi mën ko jëriñoo kon maam Cheikh Massamba wallu na ñi nga li nga xam ne mooy askanu mouridisme wallu na ñi nga xam ne mooy askanu Sénégal waaye wallu na àdduna bépp ndax jàpp naa ne tey xaside yi nga xam ne moom Serigne Touba def ne ay ay ruu la ay jëmm la yoo xam ne amuñu ruu su leen Cheikh Massamba maasee mu am ruu yaakaar naa su fekk bu ko Cheikh Massamba maasutoon yaakaar naa loolu kenn du ko kenn du ko mën waaye maasal ko mel ni Serigne Touba nga xam ne nee na nu si ali nuuru lisaani wal kitab asmaana xidmati la da alal kitab nga xam ne raw na mboolem koo xam ne dégg nga arab wala nga namp ko raw na lépp loo xam ne mun jit la wala xaamus ba baat ya sëriñ tubaa di utiliser sëriñ tubaa seex maam seex masaam mën koo dégg mën koo tekki loola yaakaar naa xam-xam mun ta weesu loolu loolu nag ku ku ñu waajal moo ko man ndaxte boo xoolee baat bii di tuddee bi ñu tuddee nasir mi ngi ñëw ci xaamus 1952 te sëñ tubaa jiitu na loolu 1800 nangam kon ba mu koy ba mu koy taalif baatu nasir sax amagul ci làkku arab moo tax ba sëñ Tuubaa waxee ne muhammadun misaaluhu lam yaati maam Cheikh Massamba ba mu jëwee daf ne muhammadun nasiruhu lam yaati kon lu day wane ne dégg mu déggoon Serigne Touba xam gum ko xamoon moo waraloon tey ñu waajal ko ba nga xamante ne maam maam maam Serigne Touba liggéey na ci xasida yi loo xamante ne liggéeyal na ko Serigne Touba ba askan wi tey ñu ngi koy foo waaye mën a nekk ci zaahir rek ci baatin nga mën cee xeetali ko nga xam ne mën nga cee am sa yàlla mën nga cee am ci ta te loolu mooy liggéey bi nga xam ne maam Cheikh Massamba doon na ko liggéeyal Serigne Touba guddee ak bëccëg lu mat fanweeri at mu nekk mu nekk ci njabootam bi mu ko noppee gisit mu yar ak njabootam ba ak njabootam tey bu ñu leen xoolee tey yoon wa nga xam ne moom la seen waajur wa baaxoon rek jaaroon ci lañ jaar kon daal mbokk yi euh, waxtu yi moo ñu xaw a tënk waaye kenn ngi nii koo xamante ne génne na ci école Serigne Touba koo xamante ne fardul alam la ku ñu xam la indi lu ñu loo xam ne tawfiix la te buñ ko amutoon danañ ko wuti te duñ xam fan lañ koy wute ji kon daal yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokk ay leeram ñi nga xam ne ñoo ko fi ñoo ko ñoo ko fi wuutu yàlla na yàlla gën a dëgëral gën leen wéral bu baax ba li ñuy xaar ci ñoom ci seen toolu maam bi ñu def ci du kawale seen jot jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw sant sayxi mbokki Sénégal njàqare jeex na bis ni tey ndaxte lu ngeen doon jéggaani faneen ñëw fekk si leen fii ah dama ni mbokk yi su ngeen bëgg a tee lu sell lu neex baax seen wér gu yaram bu ngeen doon wër kafe bis ni tey mbokk yi gis ngeen ndax nag café Serigne Fallou Mbacké di produit bu bees tàq ñëw si marché bi waaye nag wuyu boroomam café kafe Fallou Mbacké 100 pour cent hygiène 100 pour cent qualité 100 pour cent naturel bii nag mooy marque bu njëkk si café ñu duppee ko Serigne Fallou moo waral bu ngeen bëggee am si ay stock def seen réservation mën ngeen woote bu dee Touba la si 77 636 38 03 bu dee Dakar Ouest Foire lay doon 77 521 39 14 wala Rufisque ngeen woote si 77 027 43 76 wala sax ngeen woote si 77 521 39 14 café Serigne Fallou 100 pour 100 café produit bu mucc ayib moo di gunge saa su nekk. siyaat li say xanaa masamba tabba fi daa roy roy lu seyxi bam